waa Jonwar ñuy mooy bu dëkk bi nuyu kilifa nekk ñi yëpp moo xam kilifa diine la wala kilifa aar ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar sàkku ci yéen bu baax a baax a baax a baax ñi góor ñi ndaw ñi ak jigéen ñi képp daal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di sàkku ci yow ñaan waaye di la ko ñaanal muy jàmm yàlla ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi di nuyu presse bi nga xam ne ñoom ñu déplacé woo Dakar ñun ñu ànd ñëw fii ngay jékki loolu ngeen jëm ci combat boo xam ne Papa Sow ak Siteu combat bu yàgg yoon yàlla na yeggale si novembre ngeen bëri ko que le maire mais dafa am wax ju nga xam ne démb Papa Sow da wax muy wax yoo xam ne Papa daa mel ni koo xam ne da doon raay au début Fadel waaye démb nag Papa daa xaaj Fadel la ngi taxaw la ngi taxaw Papa daf ni combat bi fukki combat su ngeen ko bëree. daf lay daan onzième ba la lay la may te ba maanaam mën la caa daan sax ngay laam-laamee waaye fukki moom da ko leer daf la ciy daan ba nga tëdd bëre bi moo la ko daan xeex moo la ko daan léegi nag loolu ci mbir la bokk waaye balaa ñoo sori dañ lay bàyyi nuyu ba pare après nga doog a dugg si ci loolu. aja bismillah. waaw asalaamaaleykum. asalaamaaleykum di wax di wax na jërëjëf borom Touba. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw di sant samay waajur di sant jonwaar di sant dakaar bi ma nekk di sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacké Alxuraan waaw beneen bi may def mooy sama mbokk séeréer yi Léaw Fole séeréer noon naa Léaw rek mi gin mam simnam ጨዋም ዳይሮፍ ጨዋም ዋጭ ዋዮፍ ሊያንጋ ሚስ መስኖ ኑ አርፍ ነው ጀንዋ ረግ መስና ሞታ ነው ይኔ ነው ተዋቱ ሜን ተረፈና አዲ ጃም መስን ዳኔ ሶፍ ተረፈ ዲራን kurki njay fop mi masana den lenga mi simna andun fop le andun ko mba fani ke yakarama yakarte nan dum ka tuna an nyojor wo fayako yaakaar ma yaakaar rawatina Jongwaar Jongwaar fani ke moof ma moof nganne simna kurma ɓe ndefno ɓen fof simna dogoruy min simna danwe min simna moromes min nawles fiyay ke garna ɓen fof ha ɓiya ke mi simna fof i leyanga koy a ñojoor ñojora lekima omar san lekima omar jalang lekama lenga xadafi keno de ngena musof trop kinma tamit jongwaar Noiref nay biir daf jógaat mi kit moom yaa ma kennoon te génn loolu laa amoon lu may wax nuyu samay mbokk joxaat leen seen wàccuwaay. Mhm. waaw si loolu laa nekkoon. defe naa kon Fadel balaa Youssef def naa am na question ma la jox léegi. defe naa mooy sa diggante ak adversaire parce que euh, liñ naan rek yàpp xaj bu sedd so papa dafa wax démb. wax boo xam ne lu mu gëm la la yaakaar laa yaakaar parce que nee na fukki combat dana la daan plus yëpp. boo laam-laamee mu doon la beneen muy onze te bu ngeen te delloo daf la da ngay daan da lay daanal muy onzième yoo xam ne soir bi suufee da lay daan mun dàq bëri mu lëpp doole lii dem moo ko wax yaakaar naa seetaan nga ko wala say mbokk seetaan waaw gëm-gëmam la wax rek xam nga man def man duma la fenn sama maam dafa décédé yee barke dem waaw yàlla ko suñu borom xaraar li may wax mooy làmb ji waaj nañ ko ba mu fii li ci des bariwul seen li ngeen def tamit journaliste yi ñi déplacé wu yëpp laa maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw waaw xam naa ne yoon bi métti naaj bi tàng na kenn ku si nekk sa waaw ni ku si nekk amoon du sa liggéey sa liggéey rek waaw mais li may wax si combat mooy combat bi dama ko jébal samay mbokk damaa ñibbi samay mbokk ñëw naa fi dix ans maa ngi fi yàgg ñu nekk ak waa Ñoojoor waa Jowaar ñëpp jàpp si ñëpp waaw lépp ñëpp ñëpp jàpp si si ñëpp jàppee maa ngi ci di entraîné durant boobu léegi waa xëy na nag yeeweeguñ ma moo tax li nga may wax nii ci Papa Sow loolu dama si mënagul ñëw cent pour cent waaw parce que na xaar Ndakaaru mu ñëw daa lu may jël rek ku si jotee rek maa ñëw waaw war naa def open press Dakar laa koy defee nañ ma xaar war naa def signature mardi na ma xaar waaw moom dafa yóbbante mais lu yàggul la jàkkaarloog man lu tax waxuma ko. loo loolu yéen laa koy laaj yéen ñi fa nekkoon démb gis ko mu mel melokaan boo xam ne mosu ko mel ah waaw kon loolu yéen laa koy laaj di dañ koo pompé wala dañ koo cuuj baaraam wala. loo yaakaar a non laaj ñaa la ko yow mi su dee ko moo ko pompé dooleem gëm-gëmam wala capacité moo ko pompé. kan moom wax waaw. loolu mun naa am parce que papa champion la champion la champion boo xamante ne tey ku dem olympique defa dara def équipe nationale defa dara. yee nekk champion boo xam ne yàgg nga bëre ñëpp xamee la ci bëre kooku kooku ndaanaan la papa Sow li ma leen yàgg wax rek du ma wax lu si moom lu dul ndaanaan. mais man na taxaw xaar ma rek man man maa jot pour man ma wane sama ndaanaan waaw loolu laa am lu may wax waaw di xaar keneen posé ma benn question. jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu tund bi du coono yi la bokk te nit bu tàbbee dëkk bu mës a dem xam-xam yokku am na fi jàngaate kon loolu ma benn question nag mu jëm ci yow. li mhm. Babacar daane lay fa lay fa lay bëtaatee. Mhm. mooy souvent dama déggaat ci communication Papa Sow démb mu ne. Siteu mënumaa daan du ci bëre. Mhm. du ci xeex. du ci lenn loo xam ne rek mën na ma sonal ci Siteu may nelaw mënumaa yee. te bul bëreewaatee cinquante combat fa ma bëgg a moom laa koy jaar ak ci lan la ko teg ba ku ñeme la peut-être daa xalaat lan la ma tax loolu laa xalaat daa lay laaj. non dafa bëgg a bégloo ay rek laa jàpp Papa bu doon nelaw ba ma ko ñoppatee sa mu bu doon nelaw ma ñoppati ko mu yeewu. bu yandooree xanaa yow li ma la xanaa déggoo ko kii nelaw nga ne munoo ko yee man dama koy ñoppati day yeewu force waaw. bi ko dee cité góosam bi daanu mhm. ma jàppee bu ma jàppee nag ma bëriloo ko ba mu bàyyi hmm. bu ma jàppee ma bëri la ko ba mu bàyyi bu xaacee ku ma xeex moom ba mu doyal. nee na bëgg des na si moom loolu ci moom lay dépendre waxoon naa ko signature parce que li ma ko wax moo ko yee. dama ko ne combat bi noo bëgg mu mer rek ci yow la. Hmm. dégg nga ma waaw moom dalaa limal ñaari ñaari jël la la limal. waaw parcelle ñaari unité la. 26 euh, unités ah. arrêt bu ñu jot wàcc ma du ma ko daan ku man. arrêt bu ñu jot. arrêt buñ jot wàcc ma duma ko daan dañuy dugg oto maak moom arrêt buñ jot wàcc ma duma ko daan unité 1 ba 24 ba 26 bu ñu jot wàcc ma duma ko daan ko waaw foo waaw moom fu mu ko teg rek laa ko teg fu mu ko teg rek laa ko teg Papa Sow bi nekk mag jëmm ah. def carrière am bay waaj a jeexal mu jaral ko mu tegloolu foofu ne moom fu ma fekk daf may daan. waaw yow kon man miy xale nan laa war a def. man miy xale nan laa war a def. nee naa la combat bi dama ko bëgg. combat bi dama ko fonk. combat bi dafa ma jaral. dégg ma papa bu mu def dara na taxaw rek moom. moom na taxaw. Babacar lii du ay de lii bis la. waaw boo fekkee da nga bëgg a gis tere la nelaw ñaari fan avant. ah ma réservé ay. waaw nga réservé pour mun a xool bu baax. man na jàpp du ma ko may dara. Ah, fu mu ñëw ma fàttal ko maa ko wax. fu mu ñëw ma fàttal ko foofu. bu ma fàttal ko foofu. kon kay jeex na. fàttal rek. moom laa lay wax wax ma beneen question ma wax leneen. nee na combat ah? koo xamante ne démb moom dafa contact même pas 30 secondes xaw ma 5 minutes mu tëdd jaaxaan. yow kooku bu la waxee day bëre 30 minutes di ko gëm. ah mais. mais démb ci biir contact dama gis démb dama gis ñu ko parce que dama gis ñu mu ko waaw ñoom góor a soq. waaw mu am ñoo xam ne ay sparring partenaires yu leer la. Mhm. Mm-hmm. est-ce que du ci lool la teg moom ba yaakaar ne mën ngeen a temps bu yàgg def ngeen ko bëri yow yaay bàyyi. xamee nga xamee nga kii Omar mi waaw ma bëggoon naa ñëw ci moom léegi. waaw dama lay laaj xamee nga ko. Omar mais. waaw ñoom ñëpp kii leen mën. wala benn ñoom ñaar ak Ibrahima ñoom ñëpp kii leen. waaw waxuma la ak Aliou waxuma la ak Abou Niasse keneen keneen. papa kon lu mu am rek. fuuf. waaw te moo ko gën a gaaw fop papa bu bëggee bëre ne dina bëre ba doyal. fekkee ne xeex la bëgg dina xeex ne naa ko ardo na indaale ko yu bari. et lii du lépp de lii bis la bis bu yàgg la ñu wàccal ko at yi baree baree baree bare yàlla di ci def ndog. waaw kon ba ñuy ñëwaat jubluwaat si lii. Hmm. ñoo ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm. may ñu jàmm. waaw waaw. salaamaaleykum mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di bu baax baax kenn ku nekk sa tur ak sa sant gannaaw ñu sant yàlla julli si yonent bi gërëm magu dëkk si sa dëkk dugg dañoo gis démb Papa Sow ñu dëkk suñu fi ko mu ne Siteu bu fekkee ne bëre rek la bëgg bu ma mën naa ko bëre loo ba stade Petit fekk si ko fa bëri ak moom bu ñu tëjee barrière yi moom dugub bi stade Petit Mbao bëri ak yow Siteu deuxième question bi mooy lan moo tax nga jógee Ndakaaru ñëw si say mbokk man loolu laa bëgg nga leeral ko ñi nga xam ne ñoo lay seetaan lan moo tax nga ñëw Ndakaaru jox say biir mbokk toog say biir mbokk toog say biir maam ak say biir papa lu tax loolu te waaw loolu li ma ciy wax mooy mooy nit amul lu dul mboqam. waaw man fii bi ma nekkee xale laa fi jógee dem jàngi métier toog naa dix ans yoo xamante ne jàng naa ko métier foofu ñëwuma fii ba yàlla indiwaat ma fii mais fur et à mesure ma yàlla dugal ma ci làmb may bëri ñu may jàppale may bëri sama nijaay bi Abdourahmane kii moo ma jàngal bëri moo ma yor entraînement mais ma dem ba moom mu may imposé da war a ñëw fii. te man ma gis ne dama war a ñëw fii bu yàgg ak man man li may bëree yëpp ak li may def yëpp man du ma jàng dafa nekk sama deret rek ma koy yàgg pratiquer mais pourquoi pas ma dem jëliku pourquoi pas ma dellu fi ma dëkk pourquoi pas ma ñëwaat nekk leader dëkk bi pour jaay dëkk bi pour màggal dëkk bi pour dëkk bi jóge fii dem feneen waaw man loolu moo ma gën a yokk ma ñëw ma ñëw nag rëccuwuma ci benn yoon rëccuwuma ko benn yoon waaw lii mooy samay ñëwaat si biir dëkk bi waaw. li ma la wax xanaa doyu la dama la ne parcelle ñaata unité la nga ne ma 26 man la 1 laay ñu dugg oto mu duma ko daal. bu doon paquet de biscuit bu doon paquet de biscuit bu doon paquet lépp laa yéey xanaa loolu bu la doyul moo lay doy waaw papa nee ko moom su fekkee ne dañ koo influencé wala dañ koo pompé air si diggante koo mu wax ma papa jàkkaaroon naa man maintes fois xool sax du ma ko def waaw fay naa la

jonwaar Gambie Amérique lépp lu baax la mais yàlla dafa def ren combat bi fii laa ko préparé yee ma nekk samay biir mbokk nag waaw ma leen di wax man waxuma la ni man jonwaar dongu dongu dongu dongu ñu ngeem ma dama lay wax ne ku taxaw sama kanam dama lay wax jonwaar dongu ñu ngeem ma kese kese ku taxaw sama kanam ay jëlee la foofu waaw. yow laaj naa la ko lamb ak musique ak dóor ak bëri ñoo ànd dégg nga ma bu ma jël yóbbaale ko. asalaamaaleykum a baax mm-hmm. sama question benn mm-hmm. sa combat ak Paa jëloon benn góoram. Mm. am mm. bi soo mm. taxaw Kampa man nu neex laa tool yëri moo ma jàpp rek. mais eh, booy bu nga xam ne góor dëkk bi dégg nga waxal papa dina fekk dina dinaa koy état bu ne bu waaw. lu mu laaj.

bu arbitre sifflé si tànk lay jëm. Mhm. tànk lay cherché. te bu ñu xoolee démb ci wàllu entraînement ñu ngi gis rapidité euh, bi entraînement ku xam na ni ñu bëri ñu ne bu arbitre sifflé sa biir tànk lay jëm. Mhm. bu fa mooy Papa Sow bu ñëwee si tànk yi ndax expert la bi yëpp ñu ne sa tànk yi bëgg fondement. waaw bu ñëwee day bëgg fondement delluwaat. da koy bëgg du ma ko may dara. tànk yooyu muy ñëw maa gën a xam foofu. mais dama la ne moom tijjeeku na moom nekkoon na ñëw hmm. waaw. papa ñëwal nga xam ne mënoo bëri mënoo xeex waaw njool mi ngay bëri waaw. mais démb démb naka nga gisee euh, waa parcelle roi des arènes nekk seen ginnaaw ñuy préparé parcelle ñuy préparé Papa ko yokk doole ko gisee lu mu waaw loolu lu rafet la lu baax la waaw te làmb affaire koñ la làmb affaire koñ la affaire gox la ñoom mi ñu def noonu dafa rafet mais dama la ne ñoo ñëpp duñ ñëw si digg bi leer na. waaw ma ne daa am lu mu lu mu lu mu lu ma bëgg na relance waat rek. Mhm. par rapport ak démb laaj naa ko mu ni mu doo ci combat bi. Mhm. mu ne moom combat bi ñu nekk sax di xalaat naan jëlee bañ a jël dina papa jël ko parce que da ngeen di liggéey. waaw ah. moom loolu la jàpp. donte yow frère am nga nitam nga parce que nee naa bu dul bëru parcelle moom yow lay faral déclaration mu doo boobu noo ko gisee. waaw rafet nag ngeen bëgg koo dugal te mënu leen koo dugal. waaw loolu dong la parce que Modou bëriwul benn. Modou xeexul nit ak mooy bëre ñu bokk gooñ te nit nañu waxante dëgg dëggandoor mooy sa mbokk gën a jege gën a yaay Modou loolu mu def dafa rafet Modou bu faralul Papa Sow kon àdduna xanaa kon kan la war a faral xanaa si dëgg. waaye nag bu waaw loolu rafet na mais dama la ne combat bi sama combat la man ak Papa Sow. maa moom dong du Mor Lo du ma Demba du ma Baate. ni ko nu mu amee Morlo. noonu laa amee Adama Gueye. noonu laa ah. amee et cetera keneen ak keneen ak keneen. waaw c'est que Modou dafa nekk leader. yéen ngeen bëgg ko jiital si benn communication nañ bàyyi loolu. papa man ak mu ñooy bëri. waaw te papa na taxaw rek mag la am na yoo xam ne bu ko jaral. mais mais leneen la ma si gis mooy loolu tamit sa diggante yax yi jóg Yékini am na ñu koy tuuti ci combat bi depuis combat bu njëkk bu yàqu ko woon sax. amoon nañ information kari dafa am lu mu la jox ci ngemba ay bagages ak loolu loo ci mën leer sa diggante yàq yàq waaw xam nga Yékini nag sama nijaay la waaw mais loolu man damay sama nijaay bi laay fexe mu wax si tey ndax mu leer seen nopp mbiru Yékini boobu waaw kii moom ak sama yaay ñoo bokk ndey baay kii moom may jàngal bëri moom Yékini nee naa la àdduna rek moo leen tàggale nii njaboot waaw mu ngi nii kii mooy Abdourahmane Eh, kii kii laa doon wax ne ay champion yu bari daana la kii waaw et eh, kii boo ko laajee dina la si wax dara. waaw waxal laaj ko ko. aja ab tamam su ko tonton si daal Yaxya. salaamaaleykum wa rahmatullah. mu ngi sant yàlla di gërëm Muhammad sallallahu alayhi waaw eh, yëg ni koy ziar bu baax. yëg ni ñu koy bu baax. jaar na fii di entraîné ñuy ànd dem si lamb di ñëw kon nijaayu Siteu la mooy buur bu lamb ji aussi. yax yax mooy buur bu lamb ji. ba tey jii ba tey jii li mu def li mu def kenn defu ko fi lamb war ta am ba jeex quatre-vingt-trois ba am moo fi def kenn defu si tamit. jàngul bëri dafa judduwaale ak moom si te baayam sawtewu ay nijaayam yëpp ay sawtu kon bu mbon la bu bëriwul bëri Yékini ñu ko ziar bu baax te jàpp na si combat bi bu baax a combat bu Siteu mën am daf ciy parce que nijaay la. ci ban côté lañ ko jàppee. ah ban côté. côté bu ne. côté bu leer na kay. leer hmm? euh, na. Papa Sow rek comme ni ko Siteu waxee. du ko ñii ñii rangale Euh, amul Modou Lo amul keneen ñii nii ñoo ma ñëw kon lu euh, Papa Sow lu mu yaakaar nañ ñun lu ko te mag la na taaw rek. mu taxaw rek. taaw dafa mën a bëri. loolu da la ñu wax. waaw na taaw rek xaar. lañ hmm. ko fekk ak jàmm. kon bële siis papa. bële siis du xool si nañu jeexal ak moom bi la ñuy ñëw ak yow parce que démb Papa Sow wax na ci a combat bu njëkk ba la taxoon xëy na mu xaw a noonu nawetaan amoon na parcelle mais bi yoon moom lépp lu fay nawetaan rek lépp bés boobu la si kenn du ko fa football ngir combat bi maanaam mobilisation boo def yow bu tarkindaa yi def ñoom bañ fas yéene moo ko nar a jiitu te bu ngeen sàgganee ñu jiitu leen stade. ak ak ak ak fii ñaata kaar fi jóge. waaw ak John wala ñaata kaar ñaata sax tey xanaa fareel del ah, waaye gaal de fii dem faa xam naa dafa kaar kaar mobilisation boobu nañ la tamit. waaw xam nga yow da ngay wax loo gisagul. man mii de. waaw. loolu nga may wax ni waaw waaw kon nañ bàyyi ba bis ba. moom moo ko wax de. waaw léegi loolu ay waxam na ne ko mu bàyyi ñi fubali ñu dem fubali. est maanaam affaire bi dafa yaatu opportunité yi. Ah. bunt yi dafa yaatu. ñu war a fubali neewtaan nañ leen bàyyi ñu fubali dégg nga ma. waaw ñu a bëri ji ñu dem làmb ji mais ah. fees. na nga ko defoon waaye lu dul loolu mooy man leen laay woo damay woo samay mbokk. waaw woo samay andi muy lu ko tàmbalee pencum Ndakaaru mm-hmm. waaw maa ngi woo tarkindaa waaw teg ko ci loxo Seck ko ñaase Adama Gueye parce que tey ku nekk fi bëgg na ñëw man leen non ñun du ñu am dëj benn ñaar man defuma dara damay toog waxtaan ak journaliste yi dalal leen buñ paree ñu saafante mais maa ngi woo ku mel ni Mansour Diom ku mel ni grand sama per bi nga xamante ne tey mooy Pape Mel Diop ki nga xamante ne tey mooy monsieur le maire Moussa Fall dëkk Diamaguène di woo monsieur le maire di woo képp koo xamante ne politicien nga nga nekk Diomaye maa ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàpp si. maa ngi woo ki nga xamante ne tey mooy grand Oudou grand Oudou maa ngay woo di sant di koy gërëm amu fayam grand laay def sport maa ngay woo di woo sama père bi nga xamante ne tey mooy Bruno Terneville maa ngay woo di koy sant sama papa ñu waaw di woo ñi nga xamante ne tey ki làmb ji képp ku ma a jàppale nga woo maa ngi lay woo di woo grand laat di sant sama grand góor Baye Mousseye taxaw nii maa ngi koy sant di sant sama xarit Wondey Wrestling Pro ak Boy Djib borom cat-cat bi waaw. loolu amoon loo xamante ne ñoom laay woo Mansour Diop fu de poids lourd maa ngi koy woo. mu ne Papa ci combat Papa Sow lu am ci combat bi. ah Papa lu bi. événement bu rëy bi. nii mu réy nii ñu koy waajal. waaw ne ko defoon na ko mu neex. bu ko doole waat na. na na fexe ba laamu ji bu mu yàqoo fenn. bi waaw. buy tuus. tuus lan. tuus lan mooy tuus. jiri Mbacke. mooy jiri jiri mooy tuus. papa ne ko aaj. waaw yow xanaa moom moom laamu ji man arrêté. aj la jili Mbacke Seck jëli waaw waaye man a jili ñoo ànd ba CNG CNG mu toog ma toog ñu wax fay waxi jili ñu noo yow ñun invité wuñ la sax yow pour wax la ne maanaam li nit ñi di wax si média yi ak lii xew mun naa bañ a bokk Papa na xam ne mbër la leader la moom xam nga la war di waxal ay leader ku mel ni ay Morlo ku mel ni ay Siteu ay Balla Gaye ay Eumeu Sène genre yow mun naa coow ak ñoom mun naa wax ak day safee mais koo xamante ne xamoo ko xamul la boo ko fekkee joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan boo ko ñobatee mu dombal la moom dagg nañ joxante cër di wax ne mobilisation bi nga xamante ne moo nar a am ak liy xew bis ba mooy nañ jël suñu matuwaay ñu xam ne kenn du xale kenn du xale ñu jox ñëpp cër dayoram estat wuñ ko nit ñi dañuy ñëw di dagg seen ticket nit ki nit munoo koo daggloo ticket ba pare bu ko maltraité loolu nañ éviter loolu beneen bi may waxaat mooy Papa Sow nañ ko teel a utal yoon bu muy jaar man fi may jaar bu mu fa jaar rek may jaar bu mu fa jaar leer na non non bu ñu yoon moom la jaar na le fa jaar. mais boo jàllee ba ñëw war naa a jàll. kan boo jàllee ba man bu ma jàllee des gars yi dañuy des ginnaaw. beneen bi may dugal mooy gis nañ sa combat bi passé bi ngay dugg si. waaw xaw waaw di coow ak alkaati yi. nga mën a éviter loolu wax ak alkaati bi alerté parce que gis nañ sorto bi ngay dugg ci stade ñu téela lu yàgg foofu ba ma amay xamante ba ñeen ñaan yow xawoon na mer jaxasoo loolu lan nga ciy waxaat tey waaw li ma ciy waxaat mooy ñoom ñoom ñoo yor suñu kaaraange te ñoom nañu xam ne ñun lu ñu miin la ñuy def muy làmb dañoo miin la ñuy def ñun làmb rek moo ñu ñoom wax naa ko keroog foofu ñu fay ñëw ñëpp Siteu moo leen fay indi wala Papa Sow mais nit ki mënul ñëw tamit nga bu ko maltraité dégg nga nañ naxante ak nit ñi xam ne ñun ak ñoom bu ñu ñibbee ñoom ñu suñu seen tëri ñun ñu jóge tekki suñu ngeemu ñoo bokk nday ñoo bokk baay ñi ci ëpp nag ñoo bokk ñi ñuy fanaan di nga gis homme de tenue boo xam ne moom civil boobu ñoo bokk benn lal bi ñu tëdd ok kon tey nañ xam ne ñooñu seen i njaboot lañ bu ñu dóor bu ñu saaga nit ki gën a dëgër bopp boo ñëwee ne ko nii laa bëgg nga defee wax ak moom si njëkk ak teraanga da koy def te doo sonn waaw man moom bëgguma benn alkaati bu ma xuma wala mu def ma dara alkaati bu ma gis nee ma champion. côté violence bi loo ci wax si ñaari camp yëpp ndax làmb daa am leneen lu mu soxla lu bokkul. ak lu yàq làmb muy sa côté ak côté Papa Sow. non non violence lañ woote non violence. Papa Sow dañ ko fay xaalis Siteu dañ ko fay xaalis ñu war a jàmbaarloo ku wóolu sa mbër rek bàyyi mu dugg si géew man sama nit nañ toog ci kaw rek. Kobaa du ma ko jooy ñaari jooy de benn jooy laa jooy. Ah, ah, benn rongoñ laa jooy. déggoo la yow faanal géwél bu déggul nga yow. benn jooy kay leer. ko bu ne rek ma def benn guux mais cafentewu ma ak moom. ah réewantewu ma ak moom. waaw. <laughs> réew ma te ku ma ko bëgg a yàqal dama lay bàyyi. xam nga waaw. Papa Sow xanaa xamoon man xamal laay ñaan yàlla. Ah? man xamal laa doon ñaan yàlla. waaw waxal. bis bi dafa maan waaw man dama doon ñaan yàlla déggoo lu mu la man a moom kese si liggéeyam. yaa ngi boppam rek maa ngi moom kese si biir làmb ji beneen mbër. maanaam bopp ko bañ a am. amul dara maa ngi moom kese su boobaa ngay xam lépp dëgg la. Papa nee naa la ba muy jeex du ma ko may virgule sama bëñ si du ko gis. waaw lu mu décidé nag wallaahi si pëseef wala si bëre man maa ko gën a pare foofu. dégg nga waaw waaw. di nga ko jox xalaat ci combat bi ne ko minute yi wala minute yi. kon moom. waaw ci moom rek. ci moom la dépendre rek. ne ko moom mooy xalaat moom na xalaat lu ko neex. fu mu baat dëgg bu lu ma la wax. cinq minutes yi seen seen maye nag combat bi mën nañu wala. comme lan. cinq de combat. combat bu ne cinq minutes la. waaw mais loolu yow mos nga seetaan sama combat bu am ay deux minutes trois minutes yooyu. ni mos nga ko gis. mos naa gis may arrêté mbër dama lay laaj. Babacar day wax ak man nag. maa ngi wax ak yow. waaw kon jeex na. boo demee na wax ma Papa Sow ne ko man ñëwu guma Ndakaaru tàngala guma de. yàlla guma de maa ngi jongwaar. toog toog. waaw bis mu sama mbokk yeewee ba jox ma liñ may jox ba ma dem. waaw ne ko open press maa ngi def open press. open press yëpp maa ngi di woo. open press bi kañ la. open press yi xamaguma juusu kañ la. mais fii ba fin du mois bi kañ. le vingt neuf la gars yi wax le deux. le vingt neuf. le vingt neuf. nañ le deux. le deux combat bi tàgg suuna ji si combat man date bi daal la. kon xoolal du mois bi. waaw dinaa leen di leen dégg ñun kaña la def na parce que mardi dama war a signé. mardi bi di ñëw waaw mais Papa Sow ne man lii may def nii yëpp. dama toog sumay biir kilifa moo tax ma def teg. moo tax nga waaw mais bu ma jógee. waaw. na ma xaar sama open presse bi dina xam lan laa may wax. léegi wax. sant naa leen. léegi looy wax production. jàmbaar di leen wax ne ñoom nii ñu tàmbalee. nañ continuer noonu. nañ organiser lépp mu jaar si yoon. parce que ñun duñu ay xale kenn. ñun ay magum jëmm lañ gis nga li fi xew ñun damay toog sa nit woo ma naan ma ay non ñi ñoo tëgg baa bi néeg ni ma ne ko loolu lu soyoon bëgg laa jaxase daal waaw dama lay wax lu soyoon man maay xeexi man man dayu milieu bi man ñeme naa am naa fit te lu ma doyul man lu ma doyul Papa Sow ne ko xam nga bii passé moo yàqoon làmb ji ñibbi ne ko moom buy dof dof lu ba yàq làmb ji moom man damay ñibbi du ma fi nekk di xulóog moom wala may xeex moom de damay sol sama daal ndànk dem ñibbi ne ko mu def fula def fayda teel a ñëw si digg maa moom ñu jàmmarloo. jeex na côté pay per view bi loolu ci ko ñëpp jënd. na ko ñëpp jënd na ñëpp jënd côté yi. waaw eh, préparé ji xam ne lamb bu doon neex. yow mm-hmm. Babacar man bu mu jógee fii ba ñëw ba tax jaaj. booy indi cosaan bi. waaw war na maam serfal lamb bu deewoon day jógaat. béjjël booba bi. li maa ngi ñëw. waaw maa ngi sant nag sama père père max Mbargane. waaw père Maxime père maa ngi koy sant père Cheikh Niang suñu président. waaw Ikri Lamsar. waaw léegi gaa yi nee nañ ma open presse bi le 29 la. waaw le 29 na ko ñëpp déggandoo. waaw maa ngi sant nag waaw ñëpp pos caara yi sama grand frère Khadar. école ah ba mbën waaw jeex na. acca gaynde waaw léegi gis nañ gaa yi tam gaa abu ñaase ñoom caatu fora gaa yi daal say nit la ñu daa mel ni eh? tarkindaa ah, yi ah gaa yi yi ñoom aboog ñoom collègue caatu fora ak ñooy man maay ñoom ñii yàlla moo ma boole ñoom te ànd bi xamuñu kañ la xamuñu fan la dañu ànd rek wala ñii dee rek a tàggal ak ñoom kañ ngay ñibbi man samay mbokk lay xaar mais maa ngi sant waa Jongwaar waa Jongwaar ñëpp maa ngi leen di sant di woo sama père Bira Koli Papa Assane maa ngi leen di sant bu baax di sant chef de village chef village bi maa ngi sant bu baax Fam Modou waaw sant naa ñëpp daal kontaan naa si ñëpp mais si tamit ñu dëggal gu mag nag bu ñuy jéggi loolu. waaw ah, na yéen jàmm seen. Ah, sant naa ñëpp. gërëm naa ñëpp. maa ngi sant Jonwaar ak Ñoojoor. di sant Xadafi di ki nga xamante ne tey mooy sama rax di sama lépp. yaa ngi dégg. muy ki nga xamante ne mooy Mame Fall yi. jóge fi ba Fayaako ñëw fii. waaw maa ngi koy sant di sant jëngwaar di sant booy fi nekk yëpp waaw